nikaay yi du ko fësal Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf roube national gi borom pastef woote woon démbu ngir tànqal borom réew mi waa réew mi wuy nañu ko ci ak pastef l'observateur nañu concert casserole ak cornay wote yu Ousmane Sonko santaane woon démb 20 heures ba gaañi topp nañu ko ci bu baax a baax ci ndakaaru ak ci région yu bari yu nekk ci réew mi kubéeri cin yéeg xotti bool yéeg poti weñ yi journal bi nee nañu dara desul démb ci guddi vox populi ne ko méga concert la ñu dund démb Ousmane Sonko mi ko woote woon moo ci jiitu ne gis nañu ko mu taxaw buntu këram ci cité kër góor gi yore ñaari kubéeri cinam di jàpp gaam matal na beex IRSEM journal l'info di ko dëggal ba xëy di ñu wax moom ci xëtam njëkk ne muy Ousmane Sonko di waay yeewi askan wi li ñu bëggoon démb ci seen concert casserole yi amee ne ko ak fitna ne jàppante bu rëy moo am démb ci guddi ca campus social bu université Cheikh Anta Ndakaaru ci diggante étudiant yu intercoalition yeewi ak wàllu yu doon tëggi bool ak yu étudiants yi APR yi doon bañ ko fa tëgg ba am ku ca blessé donte sax gaañu gaañu ya taxu ko woon a noone Maguette Sène directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di kudd ay kàddoom ci xët mu njëkk bi muy wax ne képp ku fi def lu yàq ak ana jàmm ji ci campus social bi na la leer ne organe universitaire yeeg judiciaire yi ko war a danañ ko régler ak yow gaañu topp nañu bu baax a baax ndigal li leen Ousmane Sonko joxoon manifestation yi ànd ak fitna ñoo randu démb may manifestation ci ambiance nit ñi génn nañu manifester te bal tàkkul tigga tojul xeer naawul grenade lacrymogène jibul gis ñu fit benn jàppante ci diggante manifestant yeeg takk der yi lii soo koy lii lépp bokk ci élection législative yi le journal li muy xëy di ci laaj moo di ndax dee su ko reporté dàq ko ba jëmi jamono ba xët gi ci géopolitique bi wàññeeku tribune ne ko lu mën a la ndax union sociale libérale si siiroon nañu ministre mu di waa union sociale ak bu boobaa moom dañuy reporter élection législative yi ci réew mi ci lu amul benn werante réew mi quotidien nañu werante sax moo ca am ne waa présidence de la république def nañu démb ab communiqué di weddi xibaar yi tàmbalee jib di wax ne waa union européenne dañoo sàkku ci Sénégal mu reporter élection législative yi palais de la république nee nañu loolu amul wootee député yi mu di élection législative rectificatif dina am ci réew mi ci date bi ñu ko jàpp ñi ñu jàppoon ci manifestation yi fi woon ajjuma fukki fan juróom-ñaar ci weeru juin te ñu leen doon tuumal ak attentat li ñu doon waajal ci réew mi l'observateur nee na ñu am na lu feeñaat ci enquête ba ubbil yéenekaay bi Madické Diop di commerçant bi jaayoon gaa yi fumigène yi jàpp nañu ko ca boori poorum Dakar fa lañ ko jàppee keneen ku ñu jàpp te waa sûreté urbaine jàpp ko l'observateur nee na ñu yoon mooy commanditaire bi maanaam moo jiite yëf yi këru courant gi ci réew mi di Sénélec l'observateur nee nañu moom la gaañi bëggoon song poste courant relais ba ca sortie 10 ci autoroute à bi jotoon nañ ko attaqué ak cocktail molotov léegi ko nañu li tax ba attentat boobee ñu doon jëm ca poste courant bi ci autoroute à bi antuwul morgey nee na mooy ba ñu fa sànne cocktail molotov yi ñi yëf yi waroon a explosé explosé keneen ku ñu jàppoon ci coow moo am ci réew mi jamono ji gis nañu démb ay concert casserole ak ay corne woto yu rëy réew mi ngir ñaawlu ne Macky Sall yore réew mi am na lu mat fukki nit di ñu jàpp keroog ci manifestation yi fi woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ak ay tuuma yu garaaw yu ñu gàll ci seenu ndodd gis nañu it société civile bi ci réew mi sol aw dàllam di pande Macky Sall ci bitim réew fii ci réew mi ca diiwaanu sébi xotaan journal Libération xëyaat mu di xaleb juróom-ñaari xale bi ne ko kaay ñu ànd booba yéenay raykool amoon nee na lim ci jublu woon bu weesoo naqaral yaay ji moo di dafa gis ne xale bi heure bu jotee ak doomam rek xale bi lañuy jox dëgg jërëjëf Mamadou moom